ba jige tambare Ninyoi jambar Sunyure otani senzone Ninyoi jambar Jigen yangi sinya boke Ninyoi jambar Jigen yangi ni jigen yangi Ninyoi jambar Jigen jambare Woman, no cry. Mama love you. Woman, no cry. Mama love you. Woman, no cry. ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen di ziar comme ni nga koy defee saa su nekk rek tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne moom moo di Sacré Sacré Cœur 3 ñëw seet si ki nga xamante moom moo di Ndella Madior Diouf képp. képp koo xamante ne rek yaa ngi Sénégal ak bitim réew xam nga li muy def si xele yi tey jii nag ñu ñëw seet si xele yi nga xamante ne euh, ñoom la ñuy àndal ak ñoom ak waa bébétaay ñoom ñooy ànd ak ñoom tout le temps rek di leen di fournir li nga xamante ne moom moo di bébétaay bi fii nga xamante ne ñu ngi ko tuddee pépinière euh, kër yërmande maanaam yërmande rek moom ma fi wàcc yërmande yaa rasulilaay tamit dafiy wàcc waaye yërmande yàlla tamit dafiy wàcc ndax boo xoolee xale yi nekk ay tout tànk bëgg nañ fi lool macha allah ñu leen di Euh, nga gis seen euh, habillement macha allah am solo ñu leen di toppatoo bu baax a baax a baax a baax ñuy sol lu set ba pare teg ci nag ñu leen di jox lekk bu doy kon na Bébé Taye nee na moom tamit kenn du ko ci euh, féete kanam ndax moom tamit lekk xale yo yor te xale yi ñoom ñoo ko yitteel kon na asu ñu gis ne tay ji da nga ñëwoon fii nga xamante ne moom moo di kër yëg ya mande euh, si pépinière xale yi tey nga andil leen bébétaay lan nga leen mën a wax ci bébétaay bi nga leen di andil tout le temps waaw zéro maa ngi euh, nuyu ñëpp di remercier ñëpp di remercier aussi monsieur Saw parce que tey jii li yëpp moom la mënoon nañ ko wax idée bi mu bañ mais daf ñu ko yombalal nangul ñu ko di remercier aussi Tata Ndey la di remercier ñu fi fekk ñëpp accueil bi waa accueil bi ñu ngi remercier ñëpp xale yi moom suñuy xale la dinañ ci gën di jàpp tout le temps di wax nit ñi nañ ñëpp jàppale Tata la parce que geste bu baax lay def vraiment. ñu gis ne de comme ni mu ko waxee geste bu baax lay def geste bu noble geste boo xamante ne tey jii ñëpp war nañ ko mën a def war nañ ko mën a copier ndax yor sa alal di si tëdd am ay xale yoo xamante ne dañ koy soxla wala yor say alal di ko puukaroo wala yor sa alal di ko sànni foo xamante ne parce que sànni lañ ko mën a tuddee di ko xewee di ko def loo xamante ne tey jii am na ñoo xamante ne soxla nañ ko am na ñoo xamante ne tey jii nii boo jëndee benn paquet couche jox leen ko lu rëy lay doon te yàlla dala siy bindal tiyaaba rawatina nag lekk kon euh, soxna si yow nga and ak waa bébétaay ba légui lan nga mëna expliquer ci loolu ah vraiment loolu mom mbékté la dañ koy rafetlu rek surtout né la major mi nga xamné dafa bëgg xalé yi ubbi benn pépinière li boo ñëwé xol xalé sax sa yaram day daw vraiment loolu mom dafa triste quoi comme ni ngeen ko waxé rek asu ni ko waxé ak yow ni ko waxé nu nu def si jappalé xalé yi rek dinañ ko def inshallah rabbi taxawu leen féete kanam féete len ginnaw vraiment contane nañ ci loolu man li salaan li ma gën a yëm ci affaire bi moo di man dama ñëw fii mais sama yaram dafa daw boo gisee nin leen di nin leen di téyee nin leen nin leen nin leen di yoree ak seen seen dëkkuwaay bi ni mu rafetee ni mu nooblee nga xamante ne yow di nga yor sa doom sa biir kër sax doo ko mën a toppatoo toppatoowee nii di nga yor sa sa doom bi nga jur sa biir kër sax nii ñu leen di toppatoo ak li nga xamante ne jox leen ay lal yu nooy nepp ñu siy tëdd ku ci nekk da ngaa am yaay ku ci nekk rek utal na la sa yaayu bopp boo xamante ne moom moo lay toppatoo moo lay sang moo lay couche moo lay parfumé moo lay solal yëge set ba pare am seeni fóotkat à part ah am seeni toggukat à part ku ci nekk rek maanaam sa yaram day daw ndax mën leen di toppatoowee moo moo moo moo rafet te neex yooyu yor doom ji nga jur sa doo ko toppatoo toppatoowee nii barki Serigne Touba mais avant tout dama leen di remercier yéen waa Bébé Taye action bi ngeen def tey ñu bëri mën nañ ko def defuñu ko te am na Sénégal mais defuñu ko moo ngeen ni xaale mu dem kër yërmande jàppale Ndella Madior Diouf Sacré-Cœur 3 loolu vraiment nekk na mbég mbég mbeg boo xam ne ñu ñeen di sant di leen di gërëm vraiment Sénégal yëpp war nañoo xool ñi ngeen def nii jóg taxaw ndax bébé yi soo yoree ay vingtaine de bébé gisuñu seen yaay gisuñu seen papa ka bëgg wut ay nit ñu leen téye loolu c'est émouvant gis nga nit ñi ku ne jël na xalé diko ko jox biberon boy yi yeneen ñi sax ñoy téel seen bopp biberon comme genre sonko bi soko ko joxee mu jëlal boppam biberon ah kon ki mo bébé sonko ñi ñi jambar baay ni sonko ah, waaw waaw c'est mon ami ma sha allah nee naa la bébé bi nekk dafa am yaayam yaay yi ñoo nekk ni ñu toog ak ñoom euh, ma leen di nuyu bu baax baax soxna sna def maa fi no tuddu Fatima Fatima noo def ak sa bébé yi <laughs> ñoo ngi nii rek di toppatoo. Mhm. waaw parce que gagner seen amour moo gën a am importance et vraiment ñu fi góorgóorlu daal. lu mhm. mhm. gis na mën leen mën leen di toppatoowee toppatoo yoo xale ñëpp xam na ne yoo xale neexut yombul léegi nan leen di def ak xele yi. waaw dañuy naxante ak ñoom rek parce que duñu benn duñu ñaar tamit. ñu ngi góorgóorlu waaw ku si nekk xam nañ sa caractère ak lépp. Mhm. waaw lu si am solo ngi noonu. waa mhm. ku nekk ak sa jukko ak ni nga mel ñu ngi naxante ak ñoom daal. macha allah comme ni ma ko waxee rek euh, ñu ngi toujours rek euh, ci euh, pépinière kër kër xale ya kër yërmande fii nga xamante ne moom moo di si kër Ndella Madior Diouf soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi Fatou da ngaa mel ni ko timide de <laughs> Fatou gis nañ bi ñëwee ba léegi gis nañ ne yow yaa ngi toppatoo xale yi yaa ngi leen di xool ku si jooy na fab loolu noo koy dundee. ah xanaa ñu ngi rek ndax yor xale bu mu wut waaye daal ñu gën am importance bu yow maanaam euh, ñu ngi leen di toppatoowee laa bëgg a xam réellement. dañu xëy bu ñu jógee ñu sang leen. après jox leen mu lekk après fob leen après ñun daal dinañ tëdd nelaw maanaam bu ñu xëyee dinañ sangu dinañ couche dinañ def lépp ba pare fu nooy la ñuy tëdd tamit loolu noonu ngeen ànd si ak koo xamante ne maman bu brave la maman boo xamante ne ku nekk bëggoon naa mel ni moom ku nekk bëgg ngaa mel ni moom muy ki nga xamante ne moom moo di soxna Ndella Madior Diouf muy koo xamante ne euh, képp koo xamante ne rek gis nga ko rek da ngay war a copier ci moom moom nan lay dundee ak yéen ñi nga xamante ne yéen yéen a yaayu xale donc ñu ñuy vraiment di ñu toppatoo ñun tamit ndax à l'aise ba ñu mën toppatoo xale yi ci suñu sago daal waaw. maanaam daf leen yaatalal lépp. Mhm. bëggul kenn ku jooy. bëggul kenn koo xamante ne rek day am problème. macha allah kon lii salaan ni ko déggee gis na yaayu xale yi ñoom wax nañ ni ñuy tëyee xale yi gis nañ ne tamit eh, ki nga xamante ne moom moo di soxna Madior Diouf nekk koo xamante ne c'est une c'est une c'est une femme une femme de une femme de qualité boo xamante ne bravo jiiteem foo ko fekk foo ko natt rek weesu na fa ndax lii yombul. lii yombul téye ay xale yoog ay tout tànk yoo xamante ne tey jii nii ah, yow di yor sa doom rek comme ni ma ko waxee man fu mu nekk nii sax mënu ma wax di nga yor sa doom sax doo ko mën a yoree ni nga xamante noon noonu la yoree xale yi nii ni ñu fekkee xale yi macha allah comme ni ma ko waxee sànq képp ku ci nekk rek war nga copier ci moom te lépp loo xamante ne am nga ko muy sa dërëm muy sa ñaar dërëm nga def waa bébétaay ni ñu def rek ñëw andi ko fii nii ndax xale yi moom euh, alalu yàlla la te xamoo bu màggee lu muy jë lu muy jëriñ ëllëg.